nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif saal di murit di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér euh, Moustapha Sylla Diwane di président mouvement yow jot na maa leen di nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi di ñaan ci réew mi jàmm di wax ne booba léegi ñu bëri bëgg nañ samay message ndax boobu ba léegi maa ngi ci tournée yi ci commune yi ak département de mbakk ngir moo fi xeex président Macky Sall waaye nag mu am benn message boo xam ne ni bëgg naa ko jàllale mooy ñi nga xam ne tey jii dañ nekk. di waa ñàkk yaakaar waa ñàkk yaakaar dafa laay wax moo ñi nga xam ne tey jii tekkiwuñ dara tekkiwuñ dara liggéeyu luñ président Macky Sall ci benn département di Mbacké ndax kenn ku ne xam ne ne fii moom ki ko moom mooy président Idrissa Seck te moom Moustapha Sy la diwaan dinaa leen ko xañ comme ni ma leen ko xàññee woon ci référendum bi dinaa comme ni ma leen ko xàññee ci législative yi ndax législative yi buñ ko ñàkkee maa tax ñu ñàkk ko référendum bi buñ ko ñàkkee maa tax ñu ñàkk ko maa ngi dégg nag ñuy wax waaye na nga xam ne man muy guma kenn fii ci département di Mbacké nga jug yaakaar ne da nga salfaañi élection yi wala nga jug di ko yàq loolu ku ñu ko def danaa dal ci sa kaw danaa dal ci sa kaw loolu bay boo ñëpp xam ko ñi fi nekk liggéeyu luñ département bi muy Cheikh Abdou Baleek Paate euh, Jaxateek Maam Xarim Mbàkkeek euh, képp ku fi nekk nekk responsable politique te bokk ci waa ñàkk yaakaar bay boo ñu xam ne fi mu toll nii amut lenn loo xam ne ci département de Mbàkke mën nañ ko fi am ma leen di waxtu ma leen waxtim ne fi mu toll nii bay boo ñu jël seen i seen i bagage ñu takku xam ne ñoom ñàkk nañ Tuuba ñàkk tubaa nag mooy ñu bàyyil politique Macky Sall Macky Sall kenn ko ne xam ne daanu na man loolu lu ma leer la ku nar a ñàkk Touba départ euh, nar a ñàkk Kees nar a ñàkk Dakar nar ñàkk diaspora bi nar ñàkk euh, Casamance fan ngay gañe amul fenn fooy gañe Macky Sall kenn ko xam gis xam ne gëmut dara gëmut sëriñ bi bëggut yoonu murit sëriñ sépp teg na leen ay sog di leen jaay ay di leen jàpp jàpp na fi mu toll nii Sëriñ Tuubaa deful leen Sëriñ Tuubaa li mu defal sëriñ si nañ ko xam dafa waxoon ne danaa def ñett yëf yi buur du gën a neex lu muy lekk buur du leen gën a rafet lu muy sol buur du leen gën a rafet fu muy dëkk te ku rey buur tegg leen maa ngi leen xamal ne nag jug naa ak sama mouvement yow jot na bi nga xam ne moo lëmbe département de Mbacké dinañ wër département bépp saytu élection yi président Macky Sall ñëw ñu daane ko fi le 24 février jële ko fi ci xoolaat président Idriss Seck ñu dagaat ko ci département de Mbacké ñii fi nekk nag muy Cheikh Abdou Bale ak ñi may wax ñëpp ay Paate Jaxate ñëpp na nga xam ne ñun Idrissa lañ gëm ñun Sall Paate Jaxate Idriss lañ gëm Cheikh Abdou Bale ñun Idriss Seck lañ gëm Maam Xëri Mbacké ñun Idriss Seck lañ gëm liggéey ngeen fi ba yaakaar ne nit ñi gëm nañ leen nag déet nax ngeen seen bopp nit ñi ñu gëm mooy xoolal ku jëmale Sénégal ci kanam ñun ku jëmale Sénégal ci kanam dana ànd ak yow waaye ko yaakaar ne tey jii mën ngaa fexe ba naxaat askan wi nax nga sa bopp wër nañ département bépp ànd nañu Idriss Seck yóbbu nañ ko Daaru Musi indi ko Touba nuyele ko ñëpp maa ngi ñi ma àndal ñëpp kon nañ xam ne nag fii tubaa jeexal ngeen fi jeexal ngeen fi jeexal ngeen fi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum